أشكر الله ذا الورى باندفاعي بكتاب زغلل باندفاعي أشكر الله ذا الورى باندفاعي julli mbokki taalibe yi comme ni nga xamante ne ni noonu lañ leen ko ubbile woon ginnaaw bi suñu borom dogalee ñu agsi fii ci tool yi nga xam ne moom mooy Koumpentoum démb mu nekk juróom-benn fan ci weeru baraxlu ñu jógee foofu ci dëkk boobu Touba agsi fi tey euh, juróom-ñaari fan mooy départ bi nga xamante ni mooy ndigal li nga xam moom la sëñ bi joxe képp koo xam ne fas nga yéene ñëw jaayante ci tool yi nga départ ci bisub tey jii waaye nag fédération bi nga xam ne moo tudd Ittihaad Atbaahil Xadiim li taxawu ni wa tamasuk bi diinil xawiim commission d'organisation bi ci njiitu sëriñ Ibrahima Kan ak ñi nga xamante ne ay membre organisateur yi nga xam ne ñoo aju tey jii nag faj fajaru alxames ngeen gis sunu ginnaaw sunu mbokk taali bi nga xam ne ñoom ñoo commission organisation bi di dagg garab yi ngir defar dal bi nga xamante ne nii fii la waa section yi fas yéene daal ne nii jóge nga ci ab section rek te bokk ci fédération bi boo ñëwee ci barab bii nga xamante ne nii sunu ginnaaw yaa ngi gis mbokk taali bi nekk foofu déj di dagg garab yi ngir yaatal dal bi defar ko ba macha allah ba képp koo xamante ni agsi nga rek incha allah rabbi doo am benn jafe-jafe li des nag mooy kenn ku nekk bëgg ñëw jaayante aw saw ñaq te yàlla rek daa taxit am nga ci wàllu kon mbokk yi julli di mbokk taalibe yi lii leen waanagoon ngir fas leen ko ànd ak yéen ci liggéey bi nga xamante ne nii fédération bi ñoo ñoo ñoo ñoo ngi ko fas yéene def yi nga xam ne mooy Koumpentoum ngir tool yi nga xam ne mooy tooli sëriñ bi li ñu des nag incha allah rabbi dinañ leen fas yéene topp lépp loo xamante nii yëngu-yëngu la wala liggéey la ne nii fédération bi ñoo koy def muy membre yi ak membre yi nga xamante ne nii ñëw nañ dugg ci biir tool yi ngir fas yéene toppaleel wan leen liggéey bi nga xamante ne mbokk taali bi ñoo ngi koy liggéey ci biir barab bi fédération bi nag euh, ci ndigal Sëriñ Abdourahmane Mbacké moo wax ne liggéey bi nga xam na moo ko joxe nañ àndandoo mboolem section yi di fukki nga xam ne moom la ci fédération bi yëpp nañ dalandoo benn dal mu war a doon ci njiital commission organisation Serigne Ousmane Mbacke Gaynde Fatma mi nga xam ne moo ko jiite waaye Serigne Mbacke Diouf mi topp ci moom ñun ñu toftal ñu ci ñoom yàlla dogal nag euh, Serigne Ousmane boole na ak mbooloo mi ñu war fi teew xaar section yooyu. agsi nañ fi biig bi dix heures di tegal fukki minutes ak ñaar euh, ànd nañ ak section yi nga xam ne comité d'organisation bi nga xam ne ci section yi la joge muy section Touba section Taïf Diourbel Mbacké euh, ak Ndar ak Kaolack ñoo fi daje nii waa Dakar war a ñëw ci kanam incha allah ak waa Thiès euh, section yi it ñi ngi xaar mobilisation bi ñu ñëw waaye waañ wi moom ak dal bi lépp benn yoon benn lay doon kilifa yi ci njiital sëñ Abdourahmane ak ak ak mboolem ay bokkam waaye sunu jëwrin sëriñ Ousmane Mbacké Gaynde Fatma mi nga xam ne moo jiite commission bi incha allah déggante nañ sànq ci kanam tuuti dana ñëw waaye daal ñu ànd ko ak communi communication bu nga xam ne mooy bu communication bureau fédéral te ndaw yi jógee Touba di sëriñ Bada Diop ak sëriñ Khadim ngay jiite ko ñu àndandoo ñëw ak lenn ci waa social ngir wàllu secours yu mel noonu. itam te xam ne moo àdduna ànd ñu bokk fi teew waaye daal ñu ngi fii ci waajtaayu dal bi gone yaa ngi gëj ji garab yi pour defar fi ab dal euh, su ko defee bu nu noppee nag xaar kilifa ñenn ca waañoo ña ngay defar waañoo pour waajal añ yi pour mbooloo mi ñëw jokkoon nañu ak Cheikh Diop bi nga xam ne mooy président wilaya Touba mu xamal nañu ne mbooloo maa ngi ñëw oto yaa nga Touba di xaar di waajal noonu dañu amee information ci section yi nga xam ne ñoo ci aju yëpp mbuur jot nañu léegi Euh, Louga jot nañu léegi yeneen section yëpp ñu ngi mobilisé wu euh, ci ci ci ci waajtaayu gor bi nga xam ne mooy ndigal suñu am na taal li mu jox Daaru Xuddus ku nekk xam Serigne Cheikh ak suñu Mbàkke Madina niñ meloon waaye nag tey bi ñëwee fi fekk fédération ak islaahu daara muy daara bu kër Serigne Mbàkke Madina bi ni nga xamante ni geste bu rafet bi nga xamante ni doxale lañ ko ci biñu agsee nii ndax teewaay bi ñoom ñoo sabab lu bokkoon jotuwaa euh, béréb buñ dal wala dafay loo xamante suñu borom moo ko dogal waa jërëjëf loolu moom yàlla dogal na ñun ñoo ko sos ñoo ko ñoo ko ñoo ko sabablu wilaaya bi yàlla dogalee comi comité bi ñu tànnoon ñu ñëw seet si tool yi sëriñ Bada Diop mii fi àndoon na ci sëñ Cheikh Diop Kellel moo àndoon ak sëñ Daam lu mu sëñ Atou Ngom ak sëñ Bada Diop. bi ndikkee ba ci tool yi ko ñi àndoon kenn ku ne dàkk garab ni fii laay dal biñ ne Cheikh fooy dal daf ne man wutuma dal fu sëñ Mbacke man waa kër dal ci peggam la ñuy dal. biñ ko ko ne bu ngeen déggee foo waa kër sëñ Mbacke man de dal da dal ci seen pegg biñ ñëwee yàlla dogal biñ bi bu ñu wàccee kuppantum laa woo Moustapha Ndoye ne ma bu ngeen ñëwee dal bi sa càmmooñ bi ngeen di jëkk jot foofu laa ne bi ndikkal lan tax moom Moussa Ndoye lan àndal ban ak si fii tey tam yaakaar naa sëñ Xaadim war ngaa xam relation kër sëñ Mbàkke man ak wilaya ndax soo demee xew kër sëñ Mbàkke Madina wilaya ko yore soo ñëwee ci xew wilaya tuuba wax kër sëñ Mbàkke Madina ko yore loo ànd booba du Touba rek la yem boo demee tey fii ne nii section Ndar euh, section Thiès du ndal fii seen dalu bopp lañ yor pourquoi parce que dañu ànd kër sëñ Mbacke Madina léegi sëñ Lamine moom kër sëñ Mbacke Madina ba nekk Thiès ne leen duñ ber ab dal nan àndandoo léegi nga xam ne ñoom bu ndikkee seen dalu bopp la nii dal ba nag wilaaya ak kër sëñ Mbacke Madina la parce que loolu day doon loo xam ne ñun dañoo fekk mu mu mu mu saxoon ñu koy suuxat ndax loolu diggante sëñ Cheikh sëñ Mbacke Madina la wax nañu ittihaatu at baaxil xadim bii sëriñ ci Amadou Mbacke Gaynde Fatma sos bi mu ko sosee waa kër sëñ Mbacke Madina sëñ bi dañoo bëggoon daayira def leen du ma wutub fii ak daayira sëñ Cheikh Mbacke Gaynde baa ngi fi nga xam ne ba ni fi sëñ Mbàkke man ne jógee musuñu am beneen daayira bu du daayira sëñ Cheikh Mbàkke bii ginnaaw bi fi sëñ Cheikh jógee nag sëñ Mbàkke man ni léegi nag euh, comme daayira njaboot la rek nag waa kër sëñ Mbàkke waaye téewut ànd ba amoon démb ci diggante kër sëñ Mbàkke Madina ak kër sëñ moo fi ne boo fekkee sëñ sëñ Cheikh Mbàkke Madina ak njabootu sëñ Cheikh moo xam muy sëñ Abdourahmane moo xam muy sëñ Ousmane comme ay doomi bàjjen ba bërki démb ci tool yi rek mi ngi tooñante sëñ Ousmane nag ay yow du wuteew fa dana xam naa dara doo ko fa def mu ree naa ko waaye bu mu fi def dara ñu gis ma fa rek ñuy tooñante loola cosaan la loolu nag moo waral taalibe yi kër sëñ Mbàkke mën na kër sëñ Cheikh it benn lañ ci melekaan wi ci doxeen wi ci lépp ñoom boo waxee ñu ne la niiroo ñun boo waxee ñu ne kër sëñ ñu ciy déggee mooy kenn ku ne da ngaa nawloo sa morom kenn ku ne da ngaa sa morom loolu mooy diggante kër ak moo waral seen ñaari dal yëpp dendandoo bindikee bi war a taal reer Moustapha Ndoye def na bu leen taal reer leen jox ñaari mbanay ceeb ngeen reere ko ñaari mbanay yéen ñëpp gis ko ci lañ moom lañ yekk reere te ba ñu jóge Tuuba prévoir nañ pour mu xamal ñu ñaari mbaraa nga fa ñëw ngeen jël ko ngeen reer ci après dañ ngeen ñëw tànk ndox pour nit ñi mën ko fanaanoo café gii nu tàngal ak ndékki lañ def ci ndoxum kër Sëñ Mbàkke man leen ko defee ndax amagun ndox amagun otom ndox wajaani mu nadu mu bari jaar bi gi daa bin di nu lari jaar akramani ayul gi daa kii dal bi nga xam ne moom mooy dal waa islaahu daare ni bu kër Serigne Madina waaye kenn ku nekket xam diggante ne ni ànd bu la woon moo tax tey ji dal yi ñaari dal yi suñu borom dogal ñu bokk benn côté bu nekkee ngir fas yéene ñëw saafonte ak ñoom fas yéene ñoom nammanti ko ñoom ànd bi liggéeyub si Ahmadul Moxtaar Mbacke bi nga xamante ni moom la jox Daaru Xudoos gépp diggante sëñ la woon ak Serigne Mbacke Madina ndax ku ne na ni diggante boo xam ne ñoom ñoo sa a bokk lépp kon suñ wàññi koo sëñ Abdourahmane wax ne su ngeen demee foo xamante ni fi la islaahu daa reen dal na ngeen fa dal loolu de lu rafet la loo xamante ni ku ne xam ne ni démb dellusiwaat na moo waral noo ciy sant yàlla te xam ne lii moom du loo asaar démb la woon. commission bi nga xam ne mooy fédération bi mooy yoru comité bi yor tool yi euh, communication jox nañ ñu ndigal ne nu tàmbali leen liggéey bi kon képp koo xam ni dégg nga ñu ne dañoo arrêté liggéey bi da ngaa juum. liggéey bi mi ngi dox ñu ngi liggéey xanaa kay ñun ñii fi jiitu si dañuy ay organisateur di defar ay dal moo tax ruuju ñu dañuy baasaka toog moo waral tàmbaleegul ñun sant yàlla laa ci def di ko rafetlu di ci kontaan ndax sun la sëñ Modou Moussa waxoon ni bala ma lee mën a defar ngeen doon benn loolu da ngeen koo tàmbali ndax kere bañ wëree tool ya ba ma jàppee dal la ma waa commission fédération village ni ma fu ngeen dal fa la ñuy dal yëg-yëg gi nag dañuy xam ni kon sun mbir jàng na ñun ñi ànd ñëpp sun sañoon nag kër sëñ Mor Moussa gépp noonu lay mel nii ngeen def sant nañ ci yàlla jërëjëf bi